asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen journalistes yi fi teew yépp di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñu ngi jóge ba dugaar ñëw fii ci suñu siège yi ñun waa FRAPP ak ñun waa Y'en ku ñu xam xam ñu ci lépp li nga xamante ni mooy comme ni ko camarade Guy Marie waxee fu askan wi bëtam tooyee wala bëtam xonkee ñu jug jéem ko fomp wala jéem a àndandoog ñoom fomp ko alors gii baalu na ak baalul na ma ñaan na amin bu ñaanee day dal macha allah kon jarul may baalu ak di ñaan problème bi nag sunu grand Aliou fay def na genèse bi donc wax na leen li xew jarul kon ma ciy dugg donc man je damay attaquer rek droit au but ndax lu jig njaag ñëpp xam nañ ni kenn mooy njaag man du ma wax ak surga ñun suñu mouvement yi d'habitude du ñuy wax ak surga ñun waa FRAPP ak ñun waa Y'en a ñun bu ñuy wax dañuy wax ak njaatige te benn njaatige bi fi am muy le président de la République Macky Sall Macky Sall umpalewul ni Sénégal dafa toog ci bomb bu ñuy wax coowal problème mu suuf mu nekk bomb boo xamante ni buñ ko gaawul désamorcé bés bu explosé mara day taali waaw ginnaaw ba ñun ñii nga xamante ni dénkuñu ñu benn responsabilité kenn waxuñu yaay président kenn waxuñu yaay conseiller municipal kenn waxuñu yaay maire kenn waxuñu yaay député ni ministre de l'habitat ou des terres je sais pas quoi ndeem ñun ñoo ko jël def ko préoccupation lépp ngir bëgg garder la cohésion sociale fexe ba réew mi di dal di am jàmm à plus forte raison moom mi nga xamante ni mooy njaatige bu mag bi kon bu ñuy interpeller moom la ñuy interpeller directement ndax toog nañoo ak ay service am toog nañoo ak ki nga xamante ni mooy colonel Descos toog naa ki nga xamante ni moom la ñu dénk euh, wàllum foncier toog na ki nga xamante ni mooy urbanisme toog naa ki nga xamante ni moo yor habitat donc ñooñu ñëpp xam nañ ni euh, rendre nañ ko compte kon le président de la république Macky Sall bàyyi sa tëx-tëxlu gi kilifa bu nekkee ci kër ay ginaar bu ñuy jote sax na daw àtte te xam ni bés bu coow li éclaté dina yegg si ci sa kaw te bu agsee ci sa kaw dina fekk mu trop tard Macky Sall le président de la république jugal nga régler coowal suuf si am senegal balaa moo jur musiba fan yële passé ma gis bi fi coowal euh, mbir moomu amee ba mu indi fi lim fi indi a ah, ba ñu ci jógee ma gis mu am taxawaay taxawaay bi ne ah man de sama waa dëkk danoo mer ba tax loolu juróon ay jàmmaarloo ba jàmmaarloo yi ba am fu mu naroon a yóbbu réew mi donte gëm na ko donte gëmu ko donte ni mu ko defee baax na donte baaxu ko bam ne ah man de comprendre naa sama jeunesse dañoo bëgg liggéey mu jaral ko mu génne koppar ju bëri pour jëndal ñu ay pour jëndal ñu liggéey ci Macky Sall laa gisee kuy jënd liggéey pour jëndal ñu liggéey waa donte baax naam baaxul yooyu yëpp ça n'a pas de sens li am solo mooy nopp boobu nga dékk sa askan sa jeunesse ba ne dañoo soxla liggéey di nga fexe pour saafara ko nopp boobu nga euh, lañ bëgg nga dékkaat ko sa askan bi nga xamante ni dañoo am problème mu suuf parce que problème dañ koy anticiper ni ñuy anticiper problème mooy yaa ngi dégg ni coow a gi am nga la waaye taxawal nga jël question bi nga régleel ko sa bopp su fekkee say service dañoo incompétent mëtee wuñu ko maanaam wala bu fekkee ña nga ko dénk mëtee wuñu ko jëlal ko sa bopp et ci coowal dugaar bii nag mu nekk coow lu un peu particulier ndax bi coow li commencé ba ñun waa FRAPP ak ñun waa Y'en a waa Dugar seet si woon ñu ñu waxtaan ceeg ñoom commencé teg ay def ay plan d'action ak ñoom ci ñaari semaine ci ginnaaw mu amoon fa xeex bu metti entre gendarme ak ñun askan wi bi xeex bi méttee loolu ñu gis ni xeex bi du solution ndax gendarme saa ngi gaañu askan baa ngi gaañu est-ce que toog waxtaan du du nekk euh, la meilleure solution bi ñu woowee colonel bi colonel Descos ñëw wàcc ci terrain bi bi mu wàccee ci terrain bi effectivement mu déglu ñu bi mu ñu dégloo ñun waa FRAPP man kilifa ak Guy Marius Sagna ñu waxtaan ak colonel bi lu tolloog une heure de temps daanaka ndogu fa la ñu fekk foofu ci ci ci ci site bi bi ñu waxtaanee li génne woon ci waxtaan wi mooy du ñu def benn démolissement du ñu du ñu du ñu maanaam du ñu toj dara dañuy continuer terrassement bi <coughs> dinañu libérer ndaw ñi nga xamante ni jàpp nañ leen te dinañu toog waxtaan mu nekkoon trois points yi nga xamante ni biñ fa ñëwee ñun loolu la ñu demandé woon ah mu fekk si ñu si waaye dafa mel ni fekk si boobu daf ñu doon nelawal ndax après lan la ñu gis. mu kale rendez ne dinañu toog ñun waa Y'en a marre waa FRAPP ñun waa askanu Dougar moom colonel bi ak ki nga xamante ni mooy entreprise bi tudd PICOC ak préfet ci boppam bi nga xamante ni moom le préfet il est mouillé jusqu'au moelle épinière ndax moom toog boobu du ko arrangé moom ndax moom moom moom c'est le premier bandit foncier c'est le premier voleur de de de suuf alors naka noonu comme ni ko grand Aliou waxe ah ñu am mbetteel lool bi ñu demee ba parce que nit ki nga ne en tant que colonel nga taxaw nga ne dinaa tëgg rendez joxe dat joxe lépp ba ñu validé nit ñi jugee ko Dugar jam ñaajo ñëw ba Dakar pour rendez boobu am ba ñu accès ca buntu ba mooy une minute ñu ne ma agsi nañ may leen maa ngi ñëw rejoindre leen le temps ma woo colonel bi colonel bi ne ma Euh, responsable pick-up bi maanaam naar bi marocain bi ñëw di sàcc suuf avec la complicité des de nos autorités dafa dem korité ji yooyaay loolu vraiment nekk un insulte que même la colonel devait refuser parce que y a pas plus important dara ëppul solo ay askan yu war a toog di xeex ak di gaañante ñu bàyyi korité ki tabaskeek takkum jabar lépp teg ko fa la lijjanti loolu ba noppi parce que ja euh, dama jàpp ni tabaski balaa neex dëkk bu dal la korité balaa neex dëkk bu dal la mais waa ji am tuppe wu yàpp ñu ne moom day dem korité ji ba pare ñoom ñu renforcer seen effectif la gendarmerie dolli fa ay gendarme dolli ay tracteur pour di gën a mën a euh, dëgër piir ak di terrasser <coughs> di tabax au moment où waa ji nekk fële Maroc moom di korite ba lii mujj am nii am <coughs> mooy ñu xëy askan bi tamit séeréer saafeen yi nekk ay bañkat bi ñu xëyee gis ni autorité yooyu li ñu waxoon dara amu ci ñoom ñu xëy demaat jëlal xeex bi seen loxo te liñ ciy rafetlu mooy bi waa FRAPP ak waa Y'en a taxawee wax ak askan wi askan woowu am auteur ne dinañ bàyyi lépp mu sedd ginnaaw dañuy toog waxtaan ndax dàquñu toog waxtaan bañu ñu toog waxtaan bañuñu aussi ay proposition xam nga ni askan boobu il est animé de de bonne foi bi ñu gisee ni ñoom beneen parti bi il sont animés de très mauvaise foi askan bi jóg <coughs> bi ñu jógee gendarme yi commencé di dugg ci kër yi di loqati population yi di leen jël di leen dugal ci oto yi gendarme yi di gaañu ñuy xeex ak askan bi gendarme yi di gaañu askan bi di gaañu ba démb bi may jógee voyage di ñëw ci yoon bi la ma suñu benn membre ko woo ne ma dafa am sax benn manifestant bu damb gendarme yi ñu ngi ko téye bañ ko libéré pour ñu faji ko ci laa woo colonel bi après euh, mujj nañ ko génne ba faji ji ko aywa léegi nag li ñuy ñaawlu ñun waa Y'en a marre ak waa FRAPP mooy comportement bi nga xamante ni suñ autorités yi ñu ngi ko am lan moo leen jaral ñu bàyyi un étranger un étranger parce que aussi on est tous des africains dañu nu dañu gëm le panafricaniste mais tamit nag ku ci nekk tey da ngay se ses intérêts dëkk doo dégg benn sénégalais bu dem ba Maroc di fa am un mètre carré bañuñu benn marocain bu ñëw fii comme ni ko Aliou Faye waxee ci règle de l'art am fi quatre-vingts hectares wala quatre-vingt mille hectares su fekkente ni luy delluwaat ci askan wi la ba pare mu am ko en bonne et due forme mu jaar ci fi mu war a jaar bañuñu loolu lañuy bañ kañ mooy fekk askan yi am seen suuf suuf sa am kayit ñu am ci seeni propre projet ñeneen ñëw di sakketo yo la yaay euh, euh, kii euh, machin affaire sociale affaire sociaux logement sociaux lu baax la bëgg nañ ko bëgg nañ ay dëkkuwaay kay yu yomb waaye nan lañ koy amee dëkkuwaay yu yomb yooyu dañuy ñëw foqati soofu askan bi askan boo xamante ni nee na la pare nañ pour waxtaan askan boo xamante ni nee na pare nañ pour ngeen defal ñu ay proposition <coughs> da ngeen gis logement sociaux yi fii la gën a baaxee nañ leen waxtaan ñu xool nañ leen leen koy bàyyeewee ngeen proposé ñu askan bu la wax loolu askan boobu xam nga ni askan yooyu kenn gënu leen nekk ay patriote kon dafa am luy ñuul ci suuf ba tax na peut-être ñoom bëgguñ loolu am léegi nag xoddiku balaa ngaa lakkale le président de la république monsieur Macky Sall yëg nga coowal foncier yëg nga coowal suuf li am ci Sénégal am na loo xamante ni ñun duñu ko nangu te duñu ko bàyyi mu jàll wax nañ leen ko te dinañ leen ko waxaat bërki dem boo njaay gis ngeen bi fi sama camarade bi sama xarit sama doomu day demee ñaaniñ jëf dañ ko fa def te ko fa yóbbu woon du lenn lu dul waxtaanee mbirum suuf suñ demee ba ñun askan bi nag yéen ngeen tële liñ leen dénk ngeen doxal ko ngeen tële ko ba ñun ñu koy wàcc di ko régler suñu bopp ba jàmmaarloo di ci am vous avez échoué te yaakaar naa ni échec moom kenn soxlawu ko sur ce damay profito bokkul woon ci conférence de presse bi mais di joxe rek benn rendez-vous bu ndaw a ndaw a ndaw boo xamante ni mu ngi am le 30 fële ca ñaniñ képp ku nga xamante ni sénégale nga bu bañ injustice képp ki nga xamante ni sénégalais nga bu bañ ñu noot la ñun waa FRAPP ñun waa Y'en ñu ngi lay jox rendez-vous à ñaniñ pour continuer li nga xamante ni <coughs> moom la ñu tàmbali woon pour wan leen aussi ni leen intimidation bi du jàll ci kàttanu yàlla ak mbaaxam gi bon <coughs> dama lay bàyyi nga def <coughs> nga def français parce que cooxaan naa <laughs>